alors ñu euh, rester dans le sillage du du du Gamou mhm. euh, président de la République Macky euh, dafa ànd ak le candidat de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba ñu dem seeti kilifa diine yu bëree bëri mhm. euh, ndigal euh, jip ci foyer religieux yu bëri le candidat de Benno a été intronisé par euh, Tivaouane euh, ils ont reçu le même accueil au niveau de de de de de, de Medina au niveau avec Cheikh Mahi Niass mm-hmm. alors euh, d'un autre côté aussi euh, Serigne Moustapha si aussi Euh, def euh, son, son son son sa rencontre euh, euh, bi nga xam ne moom lay amel le lendemain moom aussi mu jël ay prise de position politique nan ngay analyser ferveur politique bi ànd ak gàmmoren bi waaw euh, sëñ même bu dee xalif général citoyen la loolu buñ ko fàtte mukk jàpp naa ni képp kuy sénégalais am carte d'identité sañ nga wax ci politiku Sénégal ndax nag comme li Socrate wax rek Socrate nee na boo xeebee politique politique yàqal la te doo ci mën dara maanaam noonu laa mën a <laughs> noonu laa mën a noonu laa mën a euh, résumer li mu wax maanaam bu fekkee da nga ne yow danga nga mépriser politique maanaam da nga xeeb ñi nga xam ne ñooy jiite euh, nga xeeb xeex bi ñuy xeex pour jiite koo xam ne ni tekkiwul dara dana jaar ci xeex boobu gañe ñëw jiite la def la lu ko neex te doo ci mën dara donc ku ne kuy dund ci réew mi rek am nga droit wu élection di ñëw nga gis candidat bi la neex nga nekk sëriñ nga nekk xalif général nga nekk koo mënti doon am nga droit boobu mais man nag maa gëmatul ni man ay ndigalu sëriñ mën na jouer ci élection Sénégal. mais mais mais avant ngay <laughs> yegg avant ngay yegg ci ndigalu sëriñ aussi. Hmm. Euh, Sénégal dañoo baaxoo boo nekkee un leader d'opinion ngay ab abstenir parce que sëriñ bi que mu nekk Tivaouane que mu nekk Touba que mu nekk médina bàyyi Ndiassane dafa am des talibés yoo xam ne dañoo bokk ci ay partie dañoo dañoo bari fu ñu jógee. est que sëriñ bi. ak ci cër bi ñu ko jox ak ci taxawaay bi mu war a am gis nga les événements de de mars 2021 mhm. euh, c'est grâce à Sëñ Mountakha kon a retrouvé euh, le calme et la quiétude mhm. te loolu li ko ko may mooy tëddee njaaxanaay mën a accueillir ñëpp mën a waxtaan ak ñëpp mhm. est-ce que sëriñ bi bu demee ba commencer jël des positions politiques est-ce que loolu du ko du ko du ko du ko affaiblir parce que peut-être qu'aujourd'hui les gens de Yewwi Askan Wi peuvent être très gênés euh, par ce qui a été dit à à Tivaouane et à Kaolack. non li nga wax nag moom yow yaa ko wax man moom Serigne Serigne si moom comme nu waa weex doo ko man Serigne yu Sénégal yi man du ma ci wax dara. non may mun a xam nga man bu ma waxee ñu ne saa yu dem sekk moo ne nii Serigne si. mais pourquoi nga bàyyi ma ma tarare man sama wax circonstance sama wax circonstance aggravante. cest à li nga wax nii grave mais man su ma ko dañuy xëy suba ni Cheikh Yérim Seck moo wax. Oh, mais Yérim te bu ñu dafa mel ni affaire bi <laughs> day yëngu moo tax li ma xalaat baal ma denc ko. maa hmm? ba baal ma bañ wax ci sëriñ yi. dégg sëriñ yi moom sëriñ Sénégal man langue de bois laay def maanaam li ñëpp di wax moom laay wax jàpp sama jàmm. donc donc deuxième aspect de la question nga ne. Hmm. Euh, gëmoo ne ndigal ndigal mënati na opérer au au au Sénégal. damaa jàpp ni ndigal sax. au contraire day yàqal ki ñu koy joxal ki ñu koy joxeel. donc soutien yi ñu. affiché man sama analyse politique loolu la ma jox. soutien yi ñu affiché. waaw yi marabu yi. affiché da yàqal mais waaw. dafay révolter la masse. déedéet xam nga lu xew ci ginnaaw. Euh, taalibe yi dañoo bëggoon sëriñ yi yéene leen léegi taalibe yi dañu soxore sëriñ yi. ba pare teg leen bët ba pare yaakaar ni lu bari lu ñu ñàkk c'est que dundinu sëriñ si moo tax ñu am ko moo tax ñu ñàkk ko xoolal doomu sëriñ yi ñu jëloon yëpp teg leen tête de liste ci élection fii Sénégal. dañ leen dóor. noo dóor yu metti dóoru ñu leen de dañ leen a rendi <laughs> da wax bi parce que population Sénégal moo changé fi mu toll nii. par rapport ak vingt ans ci ginnaaw dañoo amaat beneen population sénégalais bii ñu am ni moom ak différence am ak sénégalais bi ñu amoon ñaar fanweeri at ci ginnaaw mi ngi niroog différence su ku dëkk ci biir Fuuta ak Sierra Leone bu juddoo Sierra Leone loolu ku ko comprendre mooy comprendre dara ci xew ci Sénégal est-ce que dégg nga wax bi. bu ñu demee ba Sénégal jigéen taxaw ci réseaux sociaux ñëpp di ko seetaan muy saaga saaga ndey nit ñi seen dund taxaw ci réseau sociaux yi benn par benn di dugg ci détail mais loolu dootul sénégalais Sénégal mais may mun a c'est-à-dire que les gens compte quoi mais beneen population la ñu am.